تصيبوا قوما بجهالة حضراتهم السادة أعضاء دائرة سفينة النجاة حضرات السادة ممثلي خلفاء الطرق الصوفية والأسر العلمية والدينية حضرات السادة الأئمة الأفاضل والعلماء الأكارم والمقدمين الأماجد أيها الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ñëw indi ay nuyoom ci yéen ñëpp di waa kër góor gu tëdd gi di Alxaaji Ahmad Dem lan la doon ci daje bi li matul leeral ñëpp xam na doom la ci alxaaji Ahmed Dem goroon la ci moom moo doon dañ ci doomam bi wax saf ci loxoom moo doon denc itam ki nga xam ni moo gi yaayam ñoo bokk ndey ak bay di soxna Aminata Kan kon kooku soxla li wax lu mu doon ci daje bi moo tax mu yabal nu ñu nekk délégation ñu ngi Tiwaawan pour teewal ko ci xew-xew bu texe bi di okasion boo xam ne mën nañ koo màng tey pour yeesalaat euh, cofeel ak i relation yi historique yi xam ne مور تحكي في الحاج احمد دم السيد الحاج مالك رضي الله عنهما أه، رغمني سيدي الحاج مالك دفع من بين المقدمة من لك الشهر لأنك زيادة مجرد ما أم أدمو خبرنا jumaa ji nit danaa dem ci waawal ziyaar Seydi Hadji ku bëgg na ñëw nu ànd alxaaji ahmad dem booba ndaw la ci ànd ndax ma gis Seydi Hadji Malick dañu mu présenté ko ni ki kii dan doongantu ko la nekk ci dëkk ba bëgg xam-xam di ko jëfe di ko joxe boo ko présenté baagal ba ñu génnee di dem Seydi boo waat góor ga mu ñëw mun ko maa ngi lay dénk ndongo tukulóor boobu ngay wax yaa imaamu raati bu Sokone waaye soo demee bu mu toppati ci sa gannaaw yow na ngay topp ci gannaaw góor gi ba mu ñëwee jafe dem ndigalu sëriñam Cheikh Al Hadji Malick ka nangu nangu ka bañ Al Ahmed nekk suufam ba nekk fa la fa nekk jóge fi itam ku ne gis ne téeréem bi mu am science de travail lañ ko mën a tuddee bi mu am ak Cheikh Al di sual wal jawab yi ko limtoon yëpp mu laaj ko Seydi Hadji Malick mu tontu ko ci mu mujj def ko téere ñu ñëpp ñu koy jëriñoo ba ñëwee ci suñu bibliothèque yi téere boobu ñu ngi ci léeg-léeg ñu dem gàggante koy sax ah seen ah ah ah man dem de laajoon na Seydi Hadji Malick nangam lan la tontu ñu dem seet ci téere bi ni nangam la Maodo tontu kon kooku ku nekk xam na am na relation yu dëgër yu mu am ak Seydi Hadji Malick bi sëñ Cheikh Mati am soxna doomam Safiya Mati si mu nuy sëy Babacar si sédd naa la ko soo gisee sa doom bu ko bëgg jox ko ko soo bëggee gisee sa jarbaat bu ko bëgg jox ko ko soo gisee si taalibe bu ko bëgg jox ko ko sëñ Babacar ni bu ñu nee àll bi am na borom gayndee tax kon damay jël sas yi dénk ko Cheikh Tidiane loolu kon dafa naa ni ay buumi amante na ñu dëgër diggante ma kër Cheikh Hadji Malick loolu nag bii ma njaboot bi seet see sëñ Seydou ak ñi mu ànd ma dem wax ko ko mu ne ma waaw su bis ba kon nga dem wax teewal ñu ma fa teewal fa kër si dal Hadji Malick yëpp ñu ñëw teew fi teew fi yëpp nag maa ngi ci waxtaan ak Maodo si wal Hadji Abdoul Aziz ba ci dem rek ci téléphone pour bëggoon bu fi nekkee ñu àndi dem mais malheureusement ma nga Paris ca docteur yi moom itam euh, Serigne Mbaye kazalika moom itam bëtam yi moo ko waaw mu nekk ci opération loolu moo tax ànd yi ñëw waaye ànd na nag lenn ci njaboot yi ñëw teewal Serigne Cheikh Tidiane Sy li nga xam ni tey mooy xalif général kër Seydil Hadji Malick ak lépp lu ci